mbokki Bawal info TV maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew tey nag ñëpp xam nañ ne Balla gay 2 da doon bëri ak tafaatin Tine Balla Gaye 2 da koo duma da koo daan ñu bari nag ba tafaatin Tine njëkkee bëri ak Balla Gaye numéro 2 dañ doon wax naan Balla dafa téye loxoy Tapha Tine yi boobu sax dafa am ñoo xam ne nee nañu comme Balla dañ koo fay ay millions fay ay Tapha fay Tapha ay millions ku ne am ay mbokk Tapha moo waroon a jóg si boppam. ndax bëri ak am mbër nga pare naan damaa téye si gàllaaj ak dafa dafa téye samay loxo loolu du aw lay euh, combat bii nga xam ne nag moom la Balla Gaye doon bëri ak tafaatin bi ñu koy waaj ñu bari nag jàppoon nañ ne tafaatin bi la yoon nag dina fas jom ndax bu ñu gisee entraînement yi nga xam ne Tafatine doon na ko def ak frigo yi nga xam ne tafaatin doon na ko yëkkati jàppoon nañu ne ah combat bii daal Tafatine dina nag dina wane boppam waaye nag ba sa cëppaandaw ga nag liñ gis. mooy gàcce goo xam ne supporters yi Tapha Tine yi euh, am nañu ko ndax bi ñu bëree Balla Gaye 2 da koo duma ba pare daan ko waaye li jaaxal nit ñi mooy tafaatin maanaam moom macha allah ni mu toll ba pare di entraîner Balla di ko dóor Tapha Tine faywut loolu moo jaaxal nit ñi. loolu moo jaaxal nit ñi fi mu nii nag am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi wax ne tafaatin loxo yi dañ koo téye ak dañ ko jàpp mystiquement maanaam dañ koo jàpp ci gàllaaj ñu bari loolu la ñuy wax mbëri nag ñoom ñëpp yem ku ne dana dem wuti wuti sëriñ waaye boo xoolee seetaan ba mbër mi téela ba duma la ba daan la loolu sax ñàkk fayda la tafaatin nag lu ngeen koy xelal maanaam moom dafa amul staff bu baax wala technique bi wala wala lan moo xew bii mooy ñaari combat yoo xam ne Balla Gaye 2 daan na ko tafaatin mu nekk combat yoo xam ne Balla day ñëw mel ni ku jàpp ab xaleem xale boo xam ne dañ koy dóor daal du fayu loolu la lañ gis ci ñaari combat yi Balla Gaye ak tafaatin mu nekk loo xam ne nag jaaxal nañu baree baree baree bare bi la yoon moom supporter tafaatin Tine yi rawatina ñi nga xam ne tey ñoo dëkk Bawal tey ñu bari am nañu gàcca ci tafaatin dama yaakaar ne nag dana am ñu bari ñoo xam ne sax danañ fi jóge bàyyee supporter ki nga xam ne mooy tafaatin Tine Tapha ba mu njëkkee bëreeg Balla Gaye 2 dafa dalaloon xel yu bari naan ay takk sirip waaye combat bi tamit tafaatin waajtaay bi ak ci face à yi tafatin di entraîner di yëkkati ay pneu lu ne tafatin def ko ñu ñëw combat bi yomb lool ci Balla Gaye numéro 2 lan moo xew tafaatin lan mooy problème am lan mooy problème mu tafatin dafa ragal dafa ragal Balla Gaye 2 wala loxo yi lañu takk wala wala lan moo xew en tout cas daal tafaatin moom ay mbiram fi mu ne nii jaaxal nañu baree baree baree baree bari léegi nag yéen ñi nga xam ne tey yéen a ngi ci Bawol Info TV ñi ci Bawol Info TV lan ngeen xalaat ci tafaatin lan ngeen xalaat ci Tafatine dañoo takk loxo yi wala tafaatin dafa ragal Balla Gaye numéro 2 ndax dafa am nag loo xam ne maanaam nit waru koo mën a nangu tafaatin kenn mënut a wax ne tollul ni mbër yi toll toll na ni mbër yi toll kenn mënut a wax tamit ne tafaatin amul doole am na doole kenn mënut a tamit wax ne Tafatine mënut a xeex daan nañ ko gis muy xeex di dóore. waaye daal su bëree ak bu ñëwee daal di war a bëree ak Balla Gaye 2 Balla da koy jàppee daal comme xaleem di dóor ba xolam sedd mu daal di daane daal di jéggi daal di jéggi jàll <laughs> mais loolu nag sama gars yi nag ah sëñ bi waaw sëñ bi na war ah. ah? ndax man Bawol laa dëkk. waaw wax yàlla moo nekkoon sama mbër. Mhm. waaye jàpp naa ne gàccal na Bawol gépp. mais est-ce loxo yi. kenn teewu ko. <laughs> kenn teewu loxo yi. kenn teewu ko. loolu man gawuma ko. waaw ah. te moom moo njëkk a commencé mel ni njëkk a commencé. jàpp naa ne xale bu 18 ans sax. waaw ah. bu doon mooma sama xalaat bu gàtt nag. Ah. jàpp naa ne lu mu gàtt gàtt xanaa mbéj. sa anniversaire dañ ko def. waaw wala nga xori ko. waaye ñu lay dóor ngay tàllali loxo. tàllali loxo waaw te man yàlla xam na ne Tapha laa faraloon. waaw laa yéene mu gañe lool. waaye nag gàccal na reefaan gépp waaw gàccal na reefan gàccal na département Bambey gàccal na région de Diourbel gàccal na tamit. bawol bawol yi nekk si diaspora bi ak ñi dul sax a bawol bawol ndax tamit tey jàpp naa ne supporteru Modou yi supporteru Modou Lo yi baree bare baree bari jàpp naa ne tey Tapha Tine la ñu doon la ñu doon supporter Balla nag am na ñuy wax naan mooy Real Madrid en tout cas daal ma ngi noonu. waaw Balla Gaye 2 daal moom daal su jàppee Tapha Tine te Tapha Tine nag euh, kenn mënu koo yërëm ndax mënoo ne amul doole. mënoo ne toll ni mbëri toll. njoole waaw. am na doole. am na doole na taay. ndax démb dama seetaan TikTok bi gis mu yëkkati ab firigo boo xam ne quatre personnes a ko war a jàppoo. waaw mu yëkkati ko ñaari loxo am dem dugal ko ci otaam. waaw nga xam ne ki ko jaay firigo bi sax. moom ci boppam bi muy ñëw dana ko xaaral ma woo fii trois personnes yi la ko jàpp jàppale mu ne ko déedéet jëru ko. waaw yëkkati ko nag cañ mu jug mu dem yëkkati bërigo boo xam ne li mu gàtt gàtt gàtt. pël bi ma gis mu yëkkati ko mën na cent cinquante kilos. Mhm. kon kooku xam ñàkkul doole. ba ca des moog ball bi ñu taxawee ball ci ndigg li la ko toll. Mhm. kooku kon man nga ne njoolewut. Mhm. ay loxaam gudd na. maanaam njool na loxo gudd. waaw dóor na fi nit. ba ñu yóbbu nit ki ardo. waaw dóor na fi nit dóor na fi Elton ba Elton ca la doxee bàyyi bàyyi làmb. dem Amérique ak Bombardier dóor fi Bombardier ba Bombardier mënatu ta gis ba nangu ko ci loxoom ba nangu ko ci am kon nan lan mooy problème bi man laajaat na ko en tant que journaliste waaw mooy problème bi lan mooy problème bi man daal Balla Gaye 2 xaw ma dafa takk loxoy Tapha Tine yi xaw ma ba mu ko njëkkee takk ba léegi wala bu dee njëkkoon na ko takk sax. non ñoom xam nañ jàllaaj tafaan rek. maa ngi soog a gëm ne ñoom ñoom mooy dirigeant ñooñu ànd ak Balla. waaw ku mel ne ay Aziz ak ñooñu ndax. avant combat bi seetaan naa Aziz mu daan ne sama kurus gii ma yor ni ma leeral na kurus laa yor li ma leeral dañuy daan bàll. dañuy daan tafa daan tafa moo tax ma gëm ne ñoom xam nañ lan mooy gàllaaju ba gàllaaju tafa. xam nañ fi ñu jaar moom daal. non xam nañ ko parce que dañ ko tànnal bàll. bàll xamoon na ne tey jaaroon ci ci yoonu lëndëm parce que daje naag booy ñaa booy ñaa daan ko mu dajeeg ëmm seen ëmm daan ko mu dajeeg euh, bombardier ñu jox victoire. moo mhm. tegale ñetti défaite. nga xam ne daanaka ñëpp sax ñi ko doon si par dañ doon wax naan na Balla bàyyi. Mhm. mu ñëw dajeeg Tapha Tine ñun ñëpp jàppoon na benn sénégalais boo yaakaar ne kii mën na koo daan amul. mu ñëw waxuma la daan sax waaye duuma duuma mel na ku yor sa xale bu ndaw buy soog a judd nga koy duuma di ko tere. loolu lay nuru ndax duuma na ko. Mhm. bi ko dumaa xam naa ay conseil Tapha Tine ñëwaat ne ko nag da ngay dem bëre ji. mu ñëw bëre mu daan ko moo tax man duuma na ko. daan moom daan ko. waaw Tapha kon Balla Gaye 2 Euh, du mën a tafaatin daan ko ma mel ne daal xale boo xam ne dafa génn dem foowi mu ñëw ay waajuram jàpp di dóor te du fayu du def dara loolu lañ gis ci tafaatin kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawol Info TV commentaire yi lan mooy seen xalaat ci tafaatin dañoo takk loxo yi wala tafaatin dafa ragal Balla Gaye numéro 2